بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم جزاك الله xayra kon bismillahi rahmaani rahim suñu borom mu ne alif laam miim xulibati ruum ñii di waa ruum day not nañu leen fii adna al ard ca fa gën a jege suuf sa ay fa gën a jege suufu makka wa hum min baadi xalabihim sa yaxlibuun waaye ñoom de gannaaw not gañu leen not ñoom it daañu wëlbatikuwaat not seeni noon te mooy waa farisiya fee bida i siniin ci at yu limu bida arab da ko doon wax diggante ñett ba juróom-ñeent lillahi al amru min qablu yàlla de ñee leen na ko mbir yee lu jiitu wa min baad ak ca gannaaw it wa yawma idin yafraxu almuminuun te bi su keroog day julit ña daañ békk bi nasrillah ci ndimbal ba yàlla dimbali ay jaamam yansuru man yasha yàlla mi nga xam ne mooy dimbali ku mu soob wa huwa al azizu rahim te mooy ki not ci kattanam ga mooy ka nga xam ne mooy borom yërmandeem mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi ubbee téere bi xuruf yi nga xam ne lañ ca da da dañ cay wax daa iman mooy yàlla moo gën a xam lan la ca namm ca mooy alif laam miim léegi li waraloon lii mbokk diini lislaam bi muy door ca makka daanaka sharia la ca wàccoon bëriwut la yeneen ci bi doon woote mooy tawxiid rek amma la nga xam ne mooy ñiim notoon àdduna bi jamono jooju mooy waa ruum nga xam ne moo ëmb lu ëpp ci Europe tey ak lu bari ci la nga xam ne dëkku arab yi gannaaw ba waa Faris nga xam ne mooy Iran ak la ko féete kaw yépp nga xam ne nguur gu yaatu la woon diire woon ay junni at waa ruum ñoom ay niti ahlul kitaab la ñu woon la ëppoon ci ñoom ay chrétien la ñu woon gëmoon Isa gëmoon alaxira gëmoon téere yu wàcce kaw asamaan amma waa Faris ñoog waa Makka yemoon gëmuñu dara léegi nag yàlla dogal ñuy geer bi ñuy geer waa Makka di ñaan waa Faris ñu gëmul dara gañe jullit yi di ñaan waa Ruum gañe yàlla mi dogal lu ko neex dogal ñu gañe waa Ruum yéefiri Makka yi daw am ci rawatina ku ñëw ci Abubakar na ko gis nga ah yéene woote naan am ngeen téere jóge ko asamaan ak gëm ngeen laaxira gis ngeen suñu mbokk waa Faris yi nga xam ne ñoo bokk luñ gëm niñ leen toroxale yéen ñu bis bi ngeen ñu fontoo noonu lañ leen di toroxale gis ngeen suñu borom yàlla daal di wàcce aaya yi daal di ne ah waa ruum day gàññ nañ leen ci fi nga xam ne moo gën a jege ci suuf ay gën a jege Makka ndax ñu war a gënoon a jege waa Faris waa Makka donte ne am na ñuy jël ay preuve scientifique ci alquran di wax ni àdduna al ard boobu boo fi ñu tuddee la mer mer morte mi bahrul mayit ci côté yooyu la guerre bi ama woon ci dañ ne bu ñu xoolee ci wàllu géologie sur le plan international wàllu suuf ñu ne foofoo gën a suufee ci kaw suuf suuf foofoo gën a suufee ay kon ay ba dafa nekk preuve scientifique donte ne ni la ca yéefiri arab ya ak jullit ña comprendre woon yépp mooy moo gën a jege waa Rome léegi ñoom gañe nañ leen waaye day ñooñu dañuy gañewaat ca mbokk loolu défi la loolu défi la moo tax sax lenn ci ay borom xam-xam ne lu ci bëri xuruf yi bu ko yàlla waxee alif lam mim taaha day défendre alquran la cay teg alif lam mim zalika al kitab alif lam kaza wa kaza mais fii it li tax yàlla wax li mooy lii tëkku la bu alquran teg benn ndëndam ci ne day am parce que ñoo xam ne dañoo geer ñu dàq leen ba ñu daw mais nga ne non avant neuf ans ña leen dàqoon daañu leen dàqaat loolu yàlla rek ko ñemee wax gis ngeen su ko defee kon suñu borom yàlla ne fii bid'a sinin loolu dañ dàqaat bon léegi nag suñu borom ni lillahi al amru min qablu ndax jamono bi waa Faris di dàq waa Ruum yàllaa ko dogaloon yàllaa ko seetaan la taxit waa Ruum di mën a dàqaat waa Faris it ca gannaaw ba loolu it yàllaa ko dogal yàllaa koy yàllaa koy def loolu tax mu ne lépp yàllaa koy moom te loolu it jurit loolu la war a gëm mooy soo demee mu neex neel qaddara allah wa ma shaa faal lu la mën a dal examen bi échec na accident ba lu la mën a dal ci échec àdduna neel rek ah lii la yàlla dogal ci yàlla lu ko neex lay def mais bul nekk naan law kaza bu su ma yëgoon su ma yëgoon su ma yëgoon yonent mu ne loolu day ubbi rek bunti cheytaan lillahi l amru min qablu wa min baad yàlla moom mbir yi li jiitu la ca gannaaw it yàllaa ko moom kon li jiitu baaxul naqari na la muñ ko muñ gu rafet ca ñaan la ca gannaaw nekk xéewal ñeel la moo tax suñu borom yàlla ni lillahi al amru min baadu min qabl mu ne nag boo keroogee jullit ñi dañ kontaan te it suñu borom yàlla noonu la ko mujj defee ba dañ ne sax abubakar saddiq am na yiifir bu ci nag bu ci tegoon ak moom na ko yow gëm nga li sa alxuraan ji wax mu ne ko waaw waaw ñu tegante ci ay teg na ngi noonu te lii suñu borom ne yawma isin yafraxul muminuun ñu ne loolu mi ngi am sept ans après bi ay wàccee waxoon naa leen bid'a ci arab mooy ñett ba juróom-ñeent ñu ne juróom-ñaari at après la wàcc ñu ne nag jamono bi waa Ruum di dàq waa Faris mi ngi tombee ci yonent bi alayhi salaam ca Badr mook sahaaba yi ñu dàq waa Makka kon li yàlla waxoon ne yawma izin yafrahul mu'minuun dañ jàppoon rek ne xëy na jur ñi dañ kontaan ci ne waa Ruum dàq nañu waa waa Faris waaye yàlla boole ci kontaante bu gën a rëy loolu ndax wax naa ne yéefar bi sànq nee na Aboubacar gis nga bokkaalekat yi niñ dàqee ahlul kitaab bis buñ dajee yit noonu lañ leen di rey yàlla def le contraire waa Ruum dàq nañ waa Faris waaye yonent bi ak limam bu ne it dàq nañ waa Makka ay yawma izin yafrahul mu'minuun loolu mbokk da ngay gis ne moom la borom bi wax. ci wàllu googu nga xam ni mooy ay kawtéefam jalla wa ala borom boobu nag nee na keroog jullit ñi daan kontaan bi nasrillah ci ndimbalu yàlla ndax yansuru man yasha moo tax dimbali na waa Ruum ci waa Faris dimbali na yonent bi ànd ak ñetti téeméeri nit ci waa Makka yi nekkoon junni nit lu waral loolu borom boobu mu ne mooy al aziz mooy ki not lépp ci kattanam Amérique tewu ko Russie tewu ko OTAN tewu ko amul lenn lu ko tëj ci kaw asamaan ak aw suuf waaye it mooy arrahim ab jaamam lu mu niiw niiw doole lu mu lompañ lompañ su neexee yàlla subhanahu wa taala dana ko yërëm jox ko la nga xam ne mooy ndimbalam donte ne nii bala ñuy jeexalit yàlla na yàlla may ñu ñu xam lan mooy téereb yàlla bi wallahi am na ay mbokk yoo xam ne seeni ndënd la ñuy yoro seeni ndënd de boole ko pecc moo xam ne kenn lu ko wax alif lam mim xulibati ruum ndëng dëng dëng dëng tur na fecc alif lam mim xulibati ruum mbokk lii nga xam ne mooy téere borom bi sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne heure bu ñu koy jàngal jullit yi taxsha'iru minhu juudu lazina yaxshawna rabbahum ah yaziduhum imanan talinu qulubuhum yow nga ànd ak seen dënd di tëb di fecc naan ah nangam ak nangam lu tax loolu mooy parce que kenn jàngalu leen téereb yàlla bi ay tàggat nañu leen ci comme ni ñuy tàggate ak jur di leen jëriñoo jàngaluñ leen xamuluñ leen loolu it dañuy gis te wallahi tamit dégg naa ñoo xam ne ci fañu nekkoon ñi ngi ko boole fecc bu mag wa jaa rabbuka wal malaku safan safan safan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan safan di tëb di fecc jigéen ñi génn seeni seen awra te xoolal mbokk aaya boobu ni mu tiitloo lu waral loolu mooy lañ leen wax rek kenn jànguru leen diine yal nañu yàlla boole ñu xam suñu diine yal na yàlla xamal ko suñu njaboot yal nañ ko dund ci yàlla nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ndax waa ji nga xam ne dafay dem jàkka ja yàlla di ko bindal jéego yi muy def heure boo xamee ne day dem jàkka ja ndax buy ñëw ci la bokk xadis ba day lam wax mooy bu génnee jëm ca jàkka ja jéego bu mu jégg dañ koy defal nangam ak i nangam ba baa muy dugg ca jàkka ja loolu la xadis ba wone doonte ne ne jàpp nañ it ne yàlla ci mbaaxam sa retour ba dana la ko bindal ndax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax da ngay gis pour wone ne dem ca jàkka ja ak jaamu yàlla la jóge ca jàkka ja jaamu yàlla la bisu iit daf daan jaare mbedd mi jaare beneen mbedd doonte ne ni la ñu am yaqiin moom mooy ka nga génne sa kër ba baa ngay dugg ca jàkka ja mboolem jéego boo xam ne jéego nga ko daañ la ca bindal tuyaaba faral la ca bakkaar yëkkatil la ca daraja la ca des nag ñu ngi koy njort ci suñu boroom wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam
donc buñ jëlee jiw bi amul pour dama jël benn waa ñu waxtaan ne julli bi daa am wàññi ak dolli ma ne ko julli bi dolli kese moo ci am wàññi amul léegi loolu gën jël la.
fan la day waaw julli gi dañu julli ñaari rakka au lieu ñu toog ñu jóg taxaw biñ ñu sàbbaalee ñu toogaat taaya daa di jóg indi beneen rakka bi sëlmal julli gi fi nga xam ne fa la wàññi doon amee mooy bañ jógee jëm ca ñetteelu rakkaa ba bañ ñu sàbbalee ñu continuer woon su boobaa wàññi nañ julli gi même buñ defaatee ak yokkit dañuy sujjóot qabla salaam mais maadaama bañ ñu sàbbalee dañoo dellu si waat toog moom loolu mu jàpp ak wàññi wàññi wuñ ko ndax récupéré waat nañ ko su ko defee kon loolu moom ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam noonu la waroon demee naam bismillah naam
waaw ñu naan moom turam bi mu wax rek la war a naan ak naan dafa mos a romb am ñun ba yàlla na toog ko ci benn xaj wax waaw yooyu moom dañoo jàpp rek ni waxi bani Israil ne nuux boobu mi ngi jóge ci ay na niyaax wala yu deme noonu ca moo di ne ci jooy la jóge ñu ne yonent yàlla nuux daa romboon ab xaj na ko dëgg-dëgg xaj yaa ñaaw xaj bi na ko waaw aji bind ji nga xas am am am ki bind nga xas ñu ne noox di ko jooy xaw ma ñaata téeméeri at mais loolu mbokk loolu waxi bani israel yi rek la mi ngi mel ni la ñuy wax ne daawud alayhi salaam demoon na ca bàmmeelu kam yónni woon ca armée ba jël jabaram di fa jooy ba ay njëmb sax ci ba tiim ko ba kaza wa kaza waaye sunu borom alquran lam ca tagg yeneen ci yàlla noox moo di ne turam la woon mu ne nekkoon na ab muñkat mu boole ko ci ulul azmi min rusul loolu mooy lañ cee jàpp mais pas la ca israéliens yi israéliyaat yi di wax ci seen i téere yi wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk mën nañ doyloo loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad